ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di sant suñ borom subhaanahu wa bi nga xamee ni moo ñu defal tawfiix kattanal ñu mooy ñu jàmm ak tal ak fekkee ba ñu ñëwaat fas yéene continuer di nga xam ni moom mooy suñu dars yi loolu ma sant bu baax a baax kilifay group bi ak waa groupe bi yëpp euh, si li nga xam ne taxawal nañ ko fii mu nekkoon loo xam ne amoon na solo lool lool di ñaan <clears throat> borom bi subhaanahu wa lépp li nga xam ni jëlee nañ ko fi muy suñu njariñ ñu mu des ñun ñu koy jëriñoo fa ilaa yawmi diin di ñaanal bu baax a baax ustaas yi nga xam ne ñoom ñoo ko doon taxawee euh, ak ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo yoroon liggéey bi oustaz Mouhamed ak mbooleem waa groupe bi rek ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax di wax ne yàlla na yàlla xeb dolli kon <clears throat> bu loolu jàllee dañuy ñëw continuer si li nga xam ni e, si fi nga xam ni foofu lañ yemoon mooy suñu jàngum ijji bi incha allah e, dama dañuy ñëw dugal affiche yi allah comme ça <clears throat> ñu mën commencé les mots, inshallah. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Zon. Zon. Zon. Zon. An. An. Ein. عن عن غن غن غن غن غن غن فن فن فن فن فن فن قن قن قن قن qun kon lii mooy li nga xam ni moom moo nekkoon darsi tey bi <clears throat> di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal ñu jàmmi àdduna defal ñu jàmmi alaxira in uridu illa al islaaha mastataatu tawfiqi illa billah incha allah bu ameen ndongoy dugg rek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 hin, hun, fun, fin, fun, han, hin, hun.